Pour plus de vidéos d'informations, abonnez-vous sur la chaîne YouTube de Charo Info TV appuyez sur la cloche pour avoir des notifications. Mbok internet yi euh, comme ni ngeen ko gisee rek waaye bi la yoon dina wuteeg lol ci yenen stand yi nga xamni mom lañu def ndax euh, bo len xolé gor gi nga xamni mo nek sama wet euh, silmaxa mais macha allah fay daan dolem bokk ci li nga xamni mo di foire bi xana rek mo bëgg xam papa lan moy tur bi. Cheikh Euh, tey nga bokk si ñi nga xam ne euh, da nga ñëw exposé ci bile foire est-ce que tey jii mun nañ xam euh, nan nga gisee expo foire bi ba pare. waaw ginnaaw bi ñu leen nuyoo yéen waa bi fi ñëw di nuyu soxna Kiné ak mboolem seen auditrice ak seen ñun ñooy Lamp Fall Xidma section handicapé ñi ñi ngay gis ni ay non-voyants lan yàlla dogal ñu ñëw fii ci foire bi dëkk Touba encore bokk ci fédération personnes handicapées communale de Touba Yalla dogal ñu liggéey ben benn ONG bu naan lampe International mo ni formé ci wàllu activité ndax ñu pour ñu lutter contre mendicité bi am ci dëkk bi xalé handicapé yi nga xam yalla dafa dogal ak famille ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne am dañuy dund ak handicap ñoom lan dajale foofu di liggéey ak ñoom loolu moo la tax a ñëw fii ci foire bi ci Kiné yàlla dogal na nag lii ngeen fi jot gis nii lu mel ni jinjeer bi lii ngeen gis nii parce que jinjeer la parce que jinjeer la boo xam soo ko lekkee doo digérer day day digérer sa biir di def lépp am na nañ encore jinjeer euh, ke pod ay jinjeer la yàlla dogal na it jigéen ñi ña ngay defar ay darab comme darab yee ci kaw loolu lépp ñoom handicapé yi ak ay porte-clés yoo xam ne handicapé yi moteur yi ñoo koy liggéey ci seen loxo bopp ñoom ñoo ko fi ñoo ko fi exposé ci foire eh, loolu nag liñ ciy ñaan yàlla mooy yal na yu fi gën a yokk ndax dèjà lii dana tax ñu xam ni handicapé yi donte ñu ngi leen di gis ci mbedd mi yaa foo suñ yaa foo suñ danoo amul suñ jàpp waaye képp koo am loo exposé loo xam ne jàpp nga ni da ci mën a gagné dara da ca ne. léegi nag ah ku ku amut lenn wala fi dañ naan ku yorul dara it am la fa sës mhm. loolu rek moo poussé ñu bari ci mbedd waaye ku ci nekk bëgg nga dëkk activité. loolu nag tax ñu exposé fi lii bëgg ñi nga xam ne ñoo nekk ci niveau international ak niveau national ak autorités yi ñu koy dégg yëpp ñu xam ne am na handicapés yu nekk Touba ak fépp ci Sénégal. ñu ngi jéem a def ay jéego bëgg ku leen jàppale loolu daal moom bokk na ci li ñuy wax ba nga amaat beneen question. xanaa rek euh, di laaj euh, comme ni nga ko waxee rek euh, liggéey bi nga xam ne moom ngeen def ndax doo leen ci am des fois ay jafe hmm? liggéey bi ngeen di def ndax doo leen ci am jafe-jafe. waaw waaw non dana am jafe-jafe ndax xam nga amuñu ay moyens fii ne boo dee gis ni compas bii ngay gis nii dañ ko war di xoos ak di ko def ci ay affaires yoo xam ne ay ay ay di ko dëbb yooyu yëpp boo koy def xam nga en tant que handicapé am na yenn yoo xam ne physique ba doo la may kon matériel buñ koy defee buñ ko amee dana baax beneen bi ci des mooy financement financement moom bokk na ci li nga xam ne moo moo të handicapé yi ndax nag man toujours damay gëm damay jàq jàpp ni ba léegi reconnaissance bi ñu war a am ci état bi dafa des ndax reconnaissance bi war a am ci population bi daal moo des moo tax yu bare bare bare soo ci dee dugal sa sey dama nag sa yooyit boo xasee gis ne ay handicap rek day xaw a baissé seen seen bara daal loolu moom bokk na ci jafe-jafe yi nag. ñu gis ne am na ab soxna bu nekk sa wet moom ci association bi la waa moom silmaxal moom it mooy mooy mooy defar dara bi ak yeneen série baal ma fàttali ma tur bi. Fatou Seck Fatou yow yaay defar li nga xam ne moo di draay waaw. d'accord est ce que mun nga ñëwaat ci li nga xam ne moo di liggéey bi waa liggéey bi de ñun handicapé yi dañuy góorgóorlu rek ndax bañ a toog ndax jamono ji mënoo yor sa njaboot di toog bañ a yëngu si dara moo tax ñu nekk si ay darab di nekk si ay sër di defar sama benn tante man moom laa nekkal moo may jàngal di ma jàppale may defar samay sër ak samay darab jaay si yemuma si tay jii doomu sax nag damay lijjanti sama xaas yenn saay ñëw di jaay si bëgg naa tamit ku ma jàppale. yaa ngi ciy gis sa bopp waaye. waaw waaw alhamdulilah. jàppale ci ban fànn. ku ma jàppale si ban fànn si liggéey pour su ma amoon projet tey jii dinaa mën a defaral samay darab yu gën a bëri ak samay sër yu gën a bëri indi leble si fii su fa yeeku jotee ma fayeeku loolu dina ma neex lool ndax xaalis mooy liggéey boo mu xaalis doo mën a liggéey man instant yi li nga gis taabal ji nii bariwut su ma amoon sama xaar damay defal lu bari. ñëw jaay tamit juste que cher. seeru de sans dépasse bi nga bëgg rek ndax dara bi yamuñu prix bu nekk ak prix am. comme ay ñaata ak ñaata. ak tamit bu nekk ak prix am dara bi am na 10 000 am na dara bi yoo xam tamit dafa ànd ak sëram 15000 laa koy jaayee waaw am nañu fanaanukaay yi tamit yoo xam ne 10 000 la. ngir gën a mën a jot ay vidéo xibaar. Abonnez-vous à ci chaîne YouTube bu Info TV nga daal di bës li nga xam ne cloche bi ngir mën a jot yooyu les notifications.